ravi de vous retrouver comme chaque week-end ami internaute de 24actu asalaamaaleykum ci seen benn émission bi di seen entretien saa su nekk ñu ci dara ay kàngam yoo xamante ni kenn dootu leen ràccee ci mbim réew rawatina fii ci Touba tey nag ñoo am invité Ibrahima Ka yaakaar naa ne kenn dootu ko ràññeeti ci mbim réew ndax moom ñu nekkoon conseil municipal dalangaabu nekkoon tamit PDS jiite woon section rural bi bokk tamit ci APR jege woon ki nga xamante ne nii moo di Abdou Lahad Ka di maire bu Touba jamono ji nag mi ngi nekk ci mouvement développement et social Ibrahima Kane nag yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté di ci mim réew ndaxte ñu bëree bëri xàmmee nañ ko du ma bàyyi rek du bàyyi ko mu daal di nuyoo mbokk internet di koy seetaan Ibrahima nuyu naa la. waaw jërëjëf euh, Maguette auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barke borom Touba. gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi di ñaanal seen Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te wér ak mboolem kilifa diine yi ne ci réew mi di ñaan suñu borom defal ñu jàmm nawet bii nga xam ne tey ndox laal na suuf yal nañ ko duggee ci bisimilahi rahmaani rahim te àggalee ko ci alhamdulilah rabil alamin allahumma amin Ibrahima comme ni ma ko waxee sànq gis naa ne yaa ngi bokk ci APR ñu gis ne des fois da ngay génn def ay ay euh, da ngay génn def ay vidéo yu am am solo jëmee ko si ñoom mu mel ne juboo ak yaa waa APR lu waral lu ni mel. waaw jërëjëf euh, sànq maa ngi dégg ci présentation bi nga ne conseil rural laa woon ci commune bu Dala ba jusqu'à présent conseil municipal laa fa maa sama troisième mandat euh, man Ablaye Wade moo ma yar. ma newoon ci parti démocratique sénégalais gëm nag lool libéral te ba jusqu'à présent damay resté nekk un libéro yàlla dogal euh, bi élection yi passé en 2012 Ablaye Wade recevoir ñu kër maître Madické Niang maak euh, fédération bu Touba fédération bu Mbacké Ablaye Wade woole ñu nañu léegi li ma bëggoon mooy investiture yi ñu jëm di yéen Touba ak Mbàkke yéen a koy defal seen bopp li may wax ñi ko fekkee euh, ñi ngi fi yàlla dogal am lu ñu digaloon Macky sàll mii ku ko ci mënta jàppale bu ko contre ndax waaw ndax lii ne ci ay loxoom vacance la ndax yenn a bokk kër waaye nag xam nga Sénégal politique bii ñuy politique ci réew mi ba dem nañ pour nga nekk un politicien sax aw xas lay doon ci Sénégal ndax ni ñuy doxee ndax toujours dañuy wax ne bu fukk dee gas fukk di suul am kàmb du fa mën a am te boo xoolee coow li daanaka ñu jóge woon ci genn kër gi képp la muy la famille mooy famille libérale kero bi ñu jógee dakaar ndula lañ nangoo suñu oto suñu oto lañ njëkk a nangu ci senegal avant ñuy egsi Touba def nañ investiture yi bu yàgg te loolu doon loo xamante ne tey moo tas parti bi fii ci Touba ñu jël ñoo xam ne ñun bi ñuy nekk PDS ndax man maa nekkoon porte parole lu parti démocratique sénégalais les anciens pedes fii ci Touba. investiture yi daanaka ñi ñu jël mooy ñi nga xam ne tey jii ba ñuy reyante ñun bi Ablaye Wade demagut pouvoir ñoo doon reyante ñoom lañ jëlaat fii. jël ñoo xam ne fii lañ taxawoon fii di wàcc ay kaamil muy le mouvement des marabouts taxaw fii wàcc ay kaamil ànd ko Idrissa Seck xas fi Cheikh Bass dal ci kaw autorité dëkk bi. tey ji Ablaye di jëlaat leen ànd koog maître Madické Niang jiitalaat leen ci dëkk bi ci parti démocratique sénégalais loolu bokk na ci li ma taxoon a taxaw bi ma toogee nag yàlla dogal euh, sama xarit son excellence Pathé Diakhaté doomam ji ñuy wax Saliou jaxate yàlla na ko yàlla xaare àjjana ma dem fa di ko jaale ji bi ma ko jaalee ba àggal ci la ma Pathé wax ne yow de sama xarit nga ñun ñoo fal Macky Sall te gëm nañ ne tey jii bu amul majorité ci assemblée du mën a gouverner ma bëgg nga ñëw jàppale ñu pour législative yi ñu am majorité en assemblée nationale muy sama wëlëre di sama xarit Ablaye Wade laa gëmoon te wadd moom bu fi nekkatul jàpp naa ne fi mu toll nii ba jusqu'à présent boo gisee affaire bi noyé gëm nañ ne Wade bu fi nekkatul parti bi day daanu PDS moom kenn du ko tuddati ndax loolu la nit ñi gëm ba moo waral daanaka tey jii fi mu toll nii yëf fi demee nii mu demee bon bi ma rallier pour jàppale leen ci li nga xamante ne tey mooy APR. Moustapha Cissé Lo sama frère fa la milité muy commune u Dalla Ngaabu depuis 2009 ba 2008 ba 2012 élection yi fa Macky Sall def sax dañ ko perte bi ma rallier ñëw nag ci la ñu amee doole ñu gagné législative yooyu législative yooyu la la la la APR li nga xam ne tey muy commune bu dala Ngaabu yàlla dogal ñuy dox di dem di dem di dem di dem ba élection locale yi ñëw muy 2014 sama kër lañ defee investiture yi xeex am fa coow après ma gis ne ñii daal ça ne va pas du tout élection 2019 yii nag bi mu ñëwee ci laa xoolee ne nii parti APR ak ni nga xam ne xeex yi ñuy xeexante ci seen biir parti la boo xamante ne tey li ma leer mag Sall moom bu fi jógee kenn du tudd parti bi ci laa créé sama yëfi bopp woote théâtre verdite ànd ko ak euh, Soxna Fall bi nga xam ne moo jiitee euh, femme développement ñu créé mouvement Sénégal 2024 di yëngu ci politique et développement et social lii mooy actualité Ibrahima yàlla dogalit ma nekk agent ci commune Touba ma yàgg ak euh, sama frère abdulaatka depuis commune rurale ba commune ñu ànd di liggéey waaw loolu mooy hiérarchie bi nga xamante ne tey mooy question bi nga doon laaj pour ma leeral la man fi ma jaar ci wàllu wàllu wàllu wàllu politique boobu ba bis ni tey ba nii ma créer nag sama yëfi bopp nag di dox ci loo xamante ne tey actualité la actualité boo ma ci laaj rek ma leeral la ci li nga xamante ne te lañ ci toll. ci ka bëggoon naa ñëw yow ci leader yi nga ne ñoo nekk ko. waaw xam nga Touba lay wax ndax mooy département Mbacké Macky Sall dafa am cat ci Touba waaw cat li mu am ci Touba mooy dafa amul ay responsable yu ko mën a teniral Touba ndax tey la preuve mooy Sall bépp yi ba nga xamante ne tey tàmbali na politique ak léegi musta gagné Touba. waaw li jaaxal askan bi mooy Touba. dafa am ñaar ñu fi nekk muy ñaari kilifa benn kilifa yi muy kilifa aada mooy ñi koy jàppale ci wàllu politique yeneen kilifa yi mooy kilifa diine muy suñu sang yi nga xamante ne te ñu ngi ci biir Touba di yëngu ci politique waaw ndax waaw ndax tey jii Touba dafa doon dëkk boo xamante ne tey waxoon naa ko ci législative yi mujj yi daara boo ko tabaxee ba mu jekk dañu wax ne da nga ko war a wutal donga daara bu jaar ci daara ji jàng ba fer ijji sax am mooy wala mu jàng ba maanaam wàcc ay kaamil mu leer ne kii képp koo xam ne seen tey jàngal na ko ci daara ji mën naa fer ijji waaye boo jëlee ko mës ta jaar ci daara nga ne ko kaay jiite daara ji kenn du fa fer ijji te mooy li dal Macky sàll ci Touba. laawaale département Mbacké commune yi nga xam ne mu ngi ko doon gagné sax dem na ba fi mu nii taux de participation bi mu fi doon am daf ko ñàkk. kilifa yi nekk si biir réew te ànd ak Macky Sall ñoom ñu ngi koy wane. waaw xam nga biir réew mi ak Touba. Euh, dañuy wax rek ci localité bi ci lañ toll bu àggee ci li nga xam ne mooy national mën naa la cee wax mais Touba ak Mbacké Macky Sall pour mu gañe ko day jafe ndax li tax mu pour mu gañe ko mooy jafe euh, dafa am lu ko dal li ko dal mooy dafa rafle ay kilifa yu ko jàppale ci parti bi dama koy tàmbali ci référendum ba tey jii fi mu toll nii référendum ba képp Macky Sall waroon na cee tirer leçon que ne moom ci jëm boppam ñii nga xam ne ñoo ko nekkal ci département ci biir Touba ak Mbacké dañoo tële ndax tey jii boo xoolee responsable yi doon jàppale Ablaye Wade yëpp transhumé nañu dem fekki Macky Sall te teewut Macky Sall saa yu demee élection day perte. élection yii nga xam ne tey moom lañ génn ñaata maanaam xaalis yoo xam ne tey dugal na ko biir Touba te fi mu toon defa perte élection yi loolu mu doon loo xamante ne tey war na cee def am njàngat. gouvernement bu bees bi ba mu faloo dafa wax ne dafa bëgg affaire bi gaaw waaw ba tax na tey lii nga xam ne tey jii mooy actualité ñu dugg ci képp wane na ak tële goo xamante ne tey Macky Sall tële na ko ak équipe bi nga xamante ne tey daf ko ànd di ko liggéey ci li nga xamante ne tey mooy mooy mooy mooy Sénégal partout comme dama bëgg dugg rek ci li nga xamante ne tey rapidement mooy ci national bi président Macky Sall bu fekkee ne yàlla dafa dogal ñu dem ba yàlla dogal mu jël réew mi. ànd koog ñoo xamante ne tey ñii ay baayam lañ ñii ay maamam lañ ñii ay leneen lañ kër nag boo demee ba yow si jëmi bopp nga ànd kook ñoo xam ne tey jii ñoo la mag fuuf ñu wër la di la xelal te seen intérêt bopp képp tax ñu di la xelal pour nga am résultat dina jafe ndax tey loolu mooy li nga xamante ne tey moo njëkk a suuxel li nga xamante ne tey mooy gouvernement mag sàll amul ay conseil ndax li xew du ko yëg amul ay député ndax tey jii fi mu toll nii député du peuple la ñu waroon wax waxu waruñu woon a wax député yoo xamante ne dañ fi nekkal parti wala ñu nekkal fi seen bopp te loolu mooy li nga xamante ne tey moo am assemblée la preuve mooy bërki démb rek wane nañ ko commune 19 bii bi mu amee Macky Sall lim njëkk a def dafa def appel ci ñi nga xamante ne tey mooy euh, opposition bi ñu dem ba Sénégal dangay ngay jàpp ne sax opposition amatul Sénégal ndax moo ñoom képp ku ci duggoon ci biir palais ba ba nga génn da ne cell bàyyi sénégalais yi ñuy souffrir ndax tey jii fi mu toll nii mënuñu woteel ko loo xamante ne tey defal ko ordinance boo xamante ne tey mill milliards la mu am sañ-sañu di def di dindi mu jël ministre yi nga xamante ne tey concernant mu jox leen li nga xamante ne mooy liggéey bi ku mel ne Aly Ngouille Ndiaye di ministre de l'intérieur ak ministre bi nga xam ne moo yore wàllu santé ak ministre transport ñett ñi ñoo ñoo gën a ràññeeku ci li nga xamante ne tey mooy commune 19 bi te ma jàpp commune 19 bii liñ ci waroon a njëkk a def mooy sensibilisation la woon. dañu waroon a sensibiliser ni ñi waaye waruñu woon a tiital nit ñi tey jii dem nañ ba maanaam borom kër yu bari dañoo mujj la leen di rey sax stress moo leen di rey mais du doomi jàngoro bi ndax bopp bu ubbu daanaka da ngay dem ba yàgg mala yaa ya yéen ay yem boo feebaree sax doo bëgg a dem hôpital dem nañ ba maanaam attaqué nañ fi croix rouge attaqué fi ay policiers attaqué fi ay kii te réew bu ñu demee ba ñi nga xamante ne ñoo ñu war a aar ñu leen di attaqué ñoo ñu war a faj ñu leen attaqué réew moom xamatuñ ci lu ñu nekk. te loolu dara yóbbiwuñu ko lu dul programme bu bon bi nga xamante ne tey gouvernement Sénégal ñu ngi koy Macky Sall laa yërëm. est-ce que jotul nag kon moom ndax Macky Sall laa yërëm li mu war a def tey jii fi mu toll nii xale yi wan nañ ko yoon signal fort bii nga xam ne dafa am am ñu taxaw Touba ne lii musta am Touba ñi yàggut Touba ñooy wax ne lii musta am Touba mais ñun ñi fi yàgg xam nañ ne Touba révolte naka jëkk def fi daan am révolte politique moo fi daan am. jamonoy PDS meeting bi parti socialiste doon def fii ci Daaru Marnaan ci ci ci garage bi xale yi di fa sànni xeer ba lakk gaaraas ba am kenn ci responsable politique yi taxaw wax ne maanaam Daaru Marnaan bokkul ci Touba keroog la sëñ saali wax ne luy politique nañ ko génne dëkk bi tey jii nag bu ñu demee ba wëlbatiku ñi nga xamee seen tey kenn ku ci ne war ngaa mën a moom Touba ëllëg ñu jël la ne la kaay jiite politique bi nga nangu ko lool am ci fierté sa hënta ñun duñ xam ci mën réew lañ nekk tey jii képp koo xamante ne tey yaa ngi jóg di wax waxoo maanaam ci patrimoine li nga xamante ne tey mooy dëkk bi te Touba dafa am dama ko waxoon ci benn vidéo Touba ci jëmi boppam jàng tubaab yoru ko da ngay jàng Touba benn estati la am benn patrimoine la am muy Serigne Touba tey jii bu fekkoon ne ñoo ngi tànn kenn koo xamante ne tey am na lu mu xam ci sëñ Touba maam Cheikh Ibra Fall la te njàngale yooyu dañ ko war a topp jàppale Serigne bi ci loolu di jëfe ndigal di bàyyi tere toujours nga dégg ni ñu ne sëñ bi dafa war a wax sëñ bi dafa war a wax defoon naa ci benn alerte bien d'avant avant sëriñ bi génn di wax waxoon naa ko ndax tey jii ñaari région yi nga xamante ne tey Aly Ngouille Ndiaye daf koo tànn tëj ko muy région de Diourbel région de Thiès tey bu ñu tànnee région de jurbel tëj ko mooy également benn taalibe mënatut a jóge Diourbel ñëw Touba benn taalibe mënatut a jóge Daaru Musti gi ñëw Touba benn taalibe Tiwaawoon mënatut a jóge Tiwaawoon dem Thiès secteur transport bu ñu tëjee Touba ñu ne benn oto mënatut a dem jóge fenn ñëw Touba kon tijjiwuñu secteur transport ay xale yoo xamante ne tey ndax état bi dafa waxoon ne dinaa jël nangam ci ay gone yoo xam dañuy liggéey secteur privé bi xale boo xamante ne tey sa yaay wala sa papa wala sa nijaay jàppale na la ñee nga Mbuur ñee nga dakaar ñee nga saint jàppale seen i jur yi nga xamante ne tey ñu ngi ci gox goxaan yi war a liggéey ñu tëj bunt yépp monsieur Ka est-ce que jëru kon nag kilifa yi nga xamante ni ñoo dugg ci biir politique bi ñu arrêté ko waaw bi ñu tëjee bunt yi xale yooyee nga xam ne tey jii fi mu toll nii ñu doon jàppale seeni i wayjur dañoo ñoom ñoo mujj wàcc ci terrain bi wan Macky Sall ne ko li la député yi wax du dëgg wan Macky Sall ne ko li la renseignement généraux yi wax du dëgg wan Macky Sall ne ko kilifa yi nga xam ne dañ laa dar lu ñu la waxati ay nar la xale yi wàcc ci terrain bi remplacer député yi remplacer li nga xam ne seen mooy au conseil bi remplacer mboolem koo xam ne seen tey tey ji da ngaa war nekkoon ci wetu Macky Sall wala nga nekkoon ci wetu ki nga xam ne seen tey mooy kilifa gi di xalif général des mourides yàlla na fi yàgg te wér sëñ Mountakha Mbacké yàlla defal na ko loo xam ne àgg na ci ba loo xam ne seen tey ji bu doon kafteeru café la boo ci sotti woon saaku saakub suukar bu ko dee naan du ko saf suukar su du ko saf ndax yàlla kese la kon kooku ñun ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu àdduna dañ ko war a jàppale jàppale gi mooy nañ def transparence kilifa yi fi nekk bu ñuy seddalee duñ ko séddale ci yoon ay ndimbal bu fi ñëwee duñ ko jox baa doole yi nga xam ne seen tey na ma yàlla jéggal ñi nga xam ne seen tey dañoo néew doole kilifa yi ñoo koy jël tubay paate yem ci bolle tey jii fi mu toll nii lépp loo xam ne seen wàcc na ci Touba ay ñooy wàcc ci Touba te tey jii fi mu toll nii kilifa yi ñoo koy lekk. Mm-hmm. nit ñi moom dañuy nit ñi duñ gis dara tey fi mu toll nii Sénégal dafa dem ba toll foo xam ne seen dañoo war a def taxaw njàngat ministre bu ñu fi fal falatuñu ministre république ministre politique lañu fi def wala ministre boo xam ne tey ministre région la wala ministre département la preuve mooy Dame Diop a ngi nii à Diourbel man de man Ibrahima de saa yu ma ko gisee mu ñëw Touba wala Mbacké dafa ñëw fi ab APR faatu wala mbokkam faatu mu ñëw di jàlle ji te loolu taxutoo ñu teg ko fi ndax man de kuréel bi nga xam ne dama koy jiite keroog bi ñuy def suñu assemblée générale bi jox naa ko lettre muy mouvement bi nga xam dañ ko taxawal mouvement Sénégal 2024 ñu yëngu ci social ak développement suñu premier partenaire dañoo waxoon ne état la ñu bind 370 lettres kenn teewu fa ñu pare ne ko ñi nga xam ne seen tey mooy éli la koy kenn teewu fa nit ñi nag li ñu bëgg Ibrahima du ko defal ku yàlla bind du ma ngàmbal kenn ay dàllam duma ma makar fekku kenn il est na que nag ñun suñu moyen comme dafa nekk ci bopp suñu bopp yi li ñu koy partagel mooy ñi nga xam ne seen tey ñooy askan bi gindi leen ci li nga xam ne seen tey dafa am ndax tey jii Touba barki démb wàcc gii xale yi wàcc fii ci dëkk bi fenn fu ñu dugg fa di toj loolu lu lu ñaaw la lu ñu waroon ñaawlu la waaye dafa mënutoon a ñàkk. d'accord dinañ ci ñëw sax dinañ ci ñëw mu sekkat ci kanam bëggoon naa xam tamit ndax seen mouvement bi di ngeen dem élection locale ak kan ngeen jàpp ak naka la war a mel. waaw xam nga képp koo xamante ne tey da ngaa wax fa nga jëm doo àgg rawatina nga nekk ci département boo xam ne du ñu sos du du ñu du ñu du ñu du ñu samp du ñu tàmbali ku fi teg dara rek. ñu def ci récupération ndax mooy li am ci département bi département Mbacké ami pexe ba falu moo fi nekk ay lobin ba falu moo fi nekk te képp koo xam ne seen tey falu nga fi kilifaa ne ca suuf di la di di waa kilifa ca kaw te rajo bi moom toujours ñu tàgg fi ku déewul tey jii obstacle yi nga xam ne seen tey dafa am dans le département Mbacké lu ci bari loolu moom mooy li nga xam ne seen tey moo ko indi dañu jëm ci ay élection ñun fi mu toll nii waxaguñ ci waxi politique tey jii dañu tool dañu am ñetti volets politique la et développement et social ñu yëngu ci social lu am solo bala maa ñëw ci li nga xam ne tey mooy li nga ma laaj ci wàllu politique le camp de Soukayna Fall du ko bàyyi di wax ngi fii ci arrêt gis gi kero bi nga xam ne ñun jot nañ vidéo bi soxna Fall jox ma ko moom mi nga xam ne gaynde kër baylaat gi ñu xool ba bañ tudd ci ki nga xamante ne tey mooy Touba ca kanam moo ki nga xamante ne tey mooy sama xarit si di Seck mu wax ma ne diw de moo ko filme ba ma joxee ma daal di gëstu affaire bi daal di jot ndaw si ñuy wax Soukeyna Fall mu ne ma effectivement samay xale de bu ñu añee duñu reer ma woo Soxna Fall ànd fa ak moom ñu wut ceeb ci suñuy moyen wut diw ci suñuy moyen wut suukar suñuy moyen te loolu dafa yaatu ci dëkk bi ñu woo Babacar Samb di ko remercier ci filme bi mu filme kii bi ñu ànd fa ñu def communication ñu ne ay ndimbal de dina ñëw Touba waaye du agsi ñii ñu jox la ñu am akus néew ñu jox leen ko ñu bari participer ay commerçant ñëw nañ fa joxe ay parti politique ñëw nañ fa joxe état bi soog a ñëw joxe. ba bërki démb maa ngi seetaan benn vidéo Touba ca kanam di leen féliciter waaye nañu jàpp ne nag tabax bu tabax tabax bu taxawee ba la ñoo tudd finition bi war nañoo tudd fondation bi te fondation bi ñun la bu ñu fa demutoon amaana loolee am du am. te ay nit nag bu fekkee da nga am ay doomi Touba yoo xam dañoo ne ci dëkk bi di yëngu ci social di yëngu ci développement. kilifa yi nga xamante ne dañoo ngànk dëkk bi il est que nag ñu xam ñun li ñuy yëngu lan la ñu jàppale ndax ñu li ñuy lii ñuy def nii seetuñu ci lu neex nit duñ toog fenn di tagg nit wala ñu koy waxal loo xamante ne tey lu amut la mais lii réalité mooy képp koo xamante ne tey dalal nga ñu li nga xamante ne tey ñun ci li ñu yëngu dinañ la ko wax ndax tey jii ñi nga xamante ne tey ñoom lañ àndal ci wàllu wàllu googu nekkul rek biir Touba am na ñu ne ci diaspora am na ñu nekk Dakar am na ñoo xamante ne tey ñu ngi ci biir dëkk bi tey boo doon tànn ñu ne ci biir dëkk bi ñoo gën a ñoo gën a néew sax ci li nga xamante ne tey moom la ñu kii te tey ñun képp koo xamante ne tey jàpp nañ ne da nga ne ci périphérie bi ñu war laa jàppale te ndimbali du fa àgg dañ fay dem koor gu mujj gi képp defoon nañ ko daaw koor gu mujj gi képp jël nañ ñeenti xibla yi àgg nañ ci daara yoo xamante ne tey bañ fa demee wóor na yàlla condition yañ leen fekkee ça ne va pas ndimbal yi ñëw ci dëkk bi nag ñu di ko filmer mais jaru ko Sëñ Tuubaa tax ñuy def tey jii bu njëkk njëkkatee ay milliards jox la nga woo média bi en tant que koo xam ne da nga taxawal benn kuréel woo état bi te sëñ Touba la ñuy liggéeyal mais jaru ko. Mm-hmm. ñoom ñooy woo sax déjà média mais ñoo koy woo ba pare naan waxal ma li est-ce que li ma wax baax na bu fekkee ne dëkk bee tax ñuy liggéey ak sëñ tubaa tax ñuy liggéey nañu bàyyi naxante bi mm-hmm. tey def loo xam ne ñun de suñu élément boobu ci lañ gëj a wooyee ku koy filmer ndax day mel ne tey jii ñun li ñuy def yàlla taxul ñu di ko def te li ñuy def yàlla moo tax ñu di ko def. il est temps que nag heure bu jotee ci lu mel ni bu ñu amee occasion bi dinañ leeral dóor yi nga xamee ne tey dafa ne ci dëkk bi te dafa war a dafa war a arrêté dóor yi bari na ndaw ñaa ngi dóor mag ñaa ngi dóor te dëkk bi dafa doon dëkk boo xamante ne te dëkk yërmande la kero bi xale yi wàccee fii dem nañ ba maanaam ci wàllu communication ñu ne xale yi nga xamante ne dañoo yore transport te amuñu ay kayit ñoo wàcc terrain bi dama weddi loolu dëkk bii dëkk yërmande la saret ak oto ak leneen ñoo fi bokk yem ku fi mënta génne mentoloto mënoo fee génne loolu dëkk bi dëkkub sëñ Tuubaa la dëkk bi am ay réalités boppam léegi-léegi sax ma dégg ngeen dalal nit mu naan war naa mel ne ndakaaru kuy wax Touba war naa mel ne ndakaaru rek xamoo réalité Touba Touba commune bii ñu fi def sax ëpp na fi tey jii man xalaat yama ca am mooy waxoon naa ko ci sama vidéo bële Abdoulahat Kam mee ca maire ba sëñ bi moo ko fa teg chef de village yi nga xam ne seete ñoo ne ci village yi baa leen fa teg boo demee Daaru Marnaan ñoo ngi siyaare bu baax sëñ Mbàkke Daba Sarr kenn ku ne xam na ni lépp loo xam ne seen tey wutaakoonu maam Cerno la lépp moo ngi foofu kon dëkk bi dafa am ay réalité nga dem Daaru Minam sëriñ Basiiru la nga dem Daaru Xuddoos sëñ Modou Moustapha la léegi loolu nag bu fekkee ne xool nañu loolu patrimoine nu Touba fenn fu ci nañu def fa village spécial waxuma commune de village spécial village spécial boobu ñu jël ñi nga xamante ne sëriñ si jël nañ leen foofu ñu def leen ay conseils municipaux ci biir commune bi bu boobaa lépp loo xamante ne tey lu war a dem ci kër sëñ ba la bu boobaa lépp loo xamante ne dafa war a dem ci taalibi sëñ Tuubaa yi la jàpp naa ne dina am mais bari pexe rëy làmmiñ am ay pexe ñu jël la dugal ci biir conseil municipal de Touba du tax Touba am li nga xamante ne tey mooy mooy mooy résultat. tamit ñu ngi def seen rôle ndaxte des fois da ngay gis quartier yi comme ni nga ko waxee sànq bi aide alimentaire am na yu nga xamante ni jot nañoo jot seen wàll mais am na quartier yu bëri yoo xamante ne ni jotuñu seen wàll. xam nga mooy li ma wax rek transparence bu amul dara du am maa ngi ci siyaare sama sëriñ nga xam ne mooy sama buntu ci sëñ Touba di sëñ Moustapha Moussa mu sëriñ Bassi mu sëñ Moussa Bassirou anecdote keroog bi nga xamante ne tey Ablaye Wade ma nga woote ca Fesman ba chef du village yi la ñu woowoon yu Touba ak yu département Mbacké mu doonoon programme boo xamante ne tey bu fekkoon ne loolu continuité la ba fi ñuy wax ni chef du village yi am nañ ay village yu baax bu fekkoon ne loolu continuité la chef du village yi am nañ ay oto yu baax fekkoon ne continuité la chef du village am nañ loo xamante ne tey tey jii boo jógee ci sous-préfet le représentant de l'État c'est le chef du village te tey chef du boo dem ci village am tey ji fi mu toll nii xanaa dof bu réer wala koy matte lañ koy indi mais leneen loo xamante ne tey ji fi mu toll nii lu kii la duñ ko jot am na ci nag ñoo xamante ne tey ñëpp mënuñoo bokk euh, nu mu tëdd am na ci ay chef du village yoo xamante ne tey yàq nañu deru chef du village yi fii ci dëkk bi sa jabar sa jarbaat sa rakk ak say bokk tey ji buñ ne nañu jàppale gumba yi say mbokk ngay indi bu ne nañ jàppale lafañ yi say mbokk ngay indi buñ ne nañ jàppale jigéen ñi say say jabar ngay indi loolu nag feek mu ngi am ci am réew du ñu dox te loolu moo bari Touba dañ waxante réalité yooyu nag dafa doon loo xamante ne tey bu ngeen dalalee nit nañu indi li nga xamante ne tey mooy réalité yi indi ko teg mais bëgg lu neex nit ak a tagg nit boo génne daan na ko ndax dégg nga la ma wax yooyu dafa doon yoo xamante ne tey nañ ko bàyyee géwél yi tey jii fi mu toll nii commune baa nga nee gisutoo fa benn géwél boo xamante ne teg na fa tànkam ay gone yoo xamante ne tey dañoo newoon ci parti dem ba mënatuñu am dara dar bi di ko sàmm mbayaan di aka wax loo xam ne seen tey dara du ci dëgg loolu nag fii ak boo demee kër sëñ ba moo fa am nga dem ci commune moo fa am kilifa yu bari tey ji li leen tardé te looloo tardel Macky Sall moom it. Mhm, naxante bi moo bëri. waaw c'est nangu ñu nax la dañ lay nax ndax képp koo xam ne seen tey ñëw na ci yow kàccal la dina la yóbbu lum kàccee eneen feneen bi nag dafa war a loo xam ne seen tey dafa a jeex ndax ñun lii ñuy wax lu ñu gëm la doomu aadama nag da ngaa war a am fulla yow si jëm bopp boo xëyee sol sa dàll bu ñu ne la foo jëm nga ne bërëb sàngam laa jëm mais foyee gi ñu fooyee dëkk bii di dëkku maam Cheikh Amadou Bamba for a jeex. d'accord waaw am na solo pandémie bi ñu dugg muy di coronavirus gis nañ ne kenn ku si nekk yaa ngi ciy jàppee nu nekk ngir mën koo xeex ba ba ñu gisoon euh, une femme un masque Ndéndé Ndiaye daal di koy euh, créé woon naka nga gisee mbir moomu. waa mbir moomu dama ciy félicité lool Soxna Fall di présidente euh, femme développement ak dox jàmm Mariama Ndiaye. du ma wax sax madame Mbacke Mariama Ndiaye ndax man li ma njëkk a mooy madame Mbacke madame Mbacke monsieur Mbacke c'est dafa doon loo xamante ne tey man ñi koy tiituroo dañoo xamul lan lan mooy Mbacke soxna si lañ daan wax waaw bu ma gisee ku naan madame Mbacke di ko tiituroo wala monsieur Mbacke costume di ko tiituroo daf may metti ndax man dama bëgg a dee ci taali bi Mbacke borom Tuubaa lu ma metti la monsieur Mbacke madame Mbacke xamuñu kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba dañuy fooyee yoon wi du dëgg du yoon Mariama Ndiaye bi ma wooyee ne ma sa jigéen ñi dañuy liggéey liggéey bu am solo dama bëggoon nga jox ma soxna Fall ndax ministre bi da def ñoo sant nañ taxawal fii kuréel boo xamante ne tey panel boo xam ne dañuy xeex wàllu li nga xamante ne tey mooy commune 19 bi mu doon idée bu rafet mais idée bu ñu la jox rek. la walla di wax naan gumba heure bu ne la kaañu ñu rek daa joggi ciw xeer waaye ku yàgg ci biir gumba yi rek mënoo koo dribble te loolu mooy lu ñu daal suñu diggante ak ñoom bi mu wooyee après ma jox ko soxna Fall mu dugal ko ci biir paneel bi soxna génn mu woo soxna soxna ne ko xanaa boo considéré woon nit boo koy dugal ci panel war nga ko woo expliquer ko mais expliqué wu ko après bi ñu waxtaanee ba d'accord mu dugal ko ba mu ko dugalee. jékki-jékki rek dugal ko. waaw ba mu ko dugalee ba mu dugg ci biir gis na lii politique kese ko lal politique bi ma nga tàmbalee ci Macky sàll ba wàcc ba ci suuf politique kese ko lal. pardon nee na tuuti ça n'a rien à voir nu ñëw mënuñoo woteel Macky sàll 1000 milliards mu war ñoo jox ay masques war ñoo jox ceeb ak diw joxuñu ko. war ñoo jox suukar joxuñu ko. weeru koor ba weeru koor bi jeex trois mois d'état d'urgence mu jël mbir mi wax naa ko ci benn vidéo dénk ko ak njabootam njaboot ga bu ñu ci amee lu leen neex du ci am lu ko neex Mansour Faye moom mu jox ceeb bi ak diw beeg suukar seeg yu kenn xamul tey jii c'est zéro ndax dara doxul kon tey jii bu Mariama Ndiaye moomee wooyee Soxna Fall Soxna Fall dugg ci biir panel bi wan leen ne tey jii fi mu toll nii de idée bii ngeen jël rafet na waaye ñun de comme bopp ba léegi ceeb bi ñu doon xaar ak diw bi gisuñu ko te ñoo li ñuy dajale ñu jënd ko ceeb ak diw jàppale ko ñi nga xam ne seen mooy néew ju doole yi Touba am na ñoo xam ne bu añee duñu ñu reer état bi tëj na ñëpp ñu doon yelwaane mënatuñoo déplacé wu sax dem di wuti ndimbal kon dëkk bi yëf yi metti na. wan leen na tey jii fi mu doon ni état bi dafa échec ci lii nga xam ne seen tey mooy commune 19 bi ndax fi ñu waroon a jaar jaaruñu fa. waroon ñoo jox ceeb à l'heure joxuñu ko waroon nañoo jox ay masque joxuñu ko tey jii nag ngeen bëgg dajale ñun ñu joxe kenn ku ne ñaari junni di participer ñu waroon ñoo jox tegoon ñu suñuy kër mu ñaaw ñaawlu loolu ñu quitté ko panel bi Mariama Ndiaye jóge fii dem ca commune ba wane na ñoom jigéeni Touba yépp ànd nañ doon benn ñu woo ñëpp woowu ñu soxna Fall ak tey jii ku tudd Abdou Lahad Ka tudd ma am loo xam ne Abdou Lahad Ka daf ko yor war koo jox jigéen ñi maa yore jigéen ñoo xamee seen tey amaana bu leen reconnaître dëkk bi reconnaître leen Ibrahima reconnaître leen man na am pôle ba nga xam ne ñoom lañ bëgg muy voie bi nga xam ne moom lañ bëgg ma jaar fa du fa jaar ndax man du ma def lu ma gëmul ñuy yëngu ci wàllu social def nañ fi safar gu mag fii ci digg penc mi amul benn autorité bu fa jaar sëñ Moustapha Moussa ñu di ko sant lool mu may ñu kër ca Poroxaan ñu dem fa def ay bernde yu mag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen bu fekkee ne léegi daje nañ ci commune ba waxuñu ko soxna Fall ma wax ko ko bu fa ñëwee ñu bëgg a sédd lépp xaalis ñu ne jigéen ñi Touba ànd nañ dafay taxaw wax ne jigéen ñi Touba ànduñu te naka jekk mosuñoo ànd ànd naxante rek lañ fi nekkee lii mooy problème bi Mariama Ndiaye nag représentant de l'État la ndax tey jii SEDAF Guèye bu fekkee dañ ko faa teg pour jigéen ñi nga xamante ne tey ñoo ngànk département bi transparence la ci war a dox mais doxu ci transparence sama kuréel bii keroog bi ma nga xam ne maa ngi koy taxawal maa ngi ko woo boobu ma nga Amérique fa la ma wuyoo mu ngi ànd ak ministre bi mu rafetlu idée bi lool keroog bi nga xam ne seen tey ñibbisi na may def assemblée générale bi lettre bi maa ko yóbbu ba këram jox ko bi ma koy jox ministre baa ngi woote mennum ay dagay moo jaar ci ci assemblée générale boobu. kon bu fekkee ne wax na ne day woo Soxna Fall pour ànd ak moom waxu dëkk jox na leen fi ay ceeb yoo xam ne seen tey ministre bi moo ko moo ko jox wax na ko ci télévision wax ko ci média wax ko ci lépp nee na ministre bi moo ko wax ne na ko jox ay xaritam. en tant que représentant de l'État nag yooyu dafa doon loo xam ne tey barki démb la Aly Ngouille Ndiaye mii génn fii daane lim doon def lépp defu ko ci ndigalu Macky Sall ci ndigalu boppam la ko doon defee ab état nag bu ñu demee ba yooyu def nii ndax toj penc bu rëy lañ dégg fii ñu ne Touba ku takkut masque da ngay fay vingt mille francs vingt mille francs waaw te ñu ngi dem di ko weddi mm-hmm. mais Touba la ñu war a la war a xam ne Touba tey ji bu woon Touba Sénégal du développé nous la vérité suñu papa Djibril Fall ma nga ca dëgg suñu papa Djibril Fall ma nga ca dëgg fii la taxaw wax ne mouridisme bu amutoon dañ ko war a créer ndax moo yore économie gu réew mi kon nit nag li nga xam ne seente mooy sa patrimoine waruñu ko fooyee ku jóg ñu ne Touba ku jóg ñu ne Touba ku jóg ñu ne Touba attaques yi dafa bari Touba même yow mii sa jëm bopp sax boo dëkkee Touba ji jógee fi dem Dakar nii commune nii tey jii li nga xam ne seente mooy feebar bi ni mu baree Dakar boo ne Touba laa jóge dañ lay daw la preuve mooy tey ji mënuñu nekk ci dakaar am deux mille nangam cas Touba toll ci ay cas yu néew ñu tëj Diourbel tëj Thiès te tëjuñu Dakar ba tey jii di jaajëfal xale yi nga xam ne seen dañoo wàcc tax Macky sàll li nga xam ne seen tey mooy euh, daan gim ñu doon daan ak nit ñu tëje woon ci kër yi yóbbu ñu foo xam ne seen yàlla yóbbu ñu fa xale yi génn ñu fa loolu nag ñun dañ ci remercier xale yi nga xam ne seen tey ñu ngi ko doon def xale yi am jom lañ président dafa war a xam ne xale yooyu xale yi am jom lañ ñi yaa fuus kay mooy ñi nga xam dañoo ànd ak moom te duñ ko wax dëgg. monsieur Ka ci laa bëgg a ñëw sax dafa dégg askan wala daf leen ragal. c'est que ragalul askan bi dafa am loo xamante ne tey jii fi mu toll nii boo nekkoon ci biir bâtiment bii ñu naan la tëli bi benn problème amu fi ba nga dégg ñaari camions yu mbëkkante génn jot na. te mooy li nga xamante ne tey dal na ki nga xamante ne tey mooy président mag Sall léegi nag moom daf cee war a def njàngat mag ndax tey jii li génnee li génnee li génne xalif général des mourides guddi mu jël rajo jumaa ji def communication gone yi doon wàcc ci tëli bi ñëpp àndaat ñibbi seen i kër suba sa ñu balewaat tëli bi ba mu set wicc xale yooyu dara ñoru leen lu du sëñ Tuubaa ndax sëriñ bee ko wax bi muy dem ci géej gi góor ga nga xam ne dañ ko toggaloon laax mu mer laax boobee ker añewu ko ba mu ñibbisee mu bëgg a jébbul sëñ Tuubaa daf ko wax ne képp koo xamee seen yow maa ngi nangu woon sa njébbal ca laax ba képp koo xamee seen tey lu jiitu ngay gane àdduna sa wayjur jébbal woon na nangul nañ la sa njébbal nañu yërëm ñi nga xamee seen tey mooy néew ju doole yi jàppale gone yi nga xamante ne tey ëllëg war nañoo mën a doon dara ci dëkk bi loola nag sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér xam na fi àdduna jëm ndax université bii nga xam ne def koo tàmbali te yàlla na ko àggale def ci ay milliards ay gone war caa génn ëllëg gone yooyu buñ ci génnee ëllëg kenn mu leen a réeral du gone yu taxaw fii ci Touba di wut ay comité du gone yu taxaw fii Touba ëllëg maanaam di ndax nit ñi ŋàbbu turu dëkk bi wala santu dëkk bi dugg ci nit ñi maanaam di ko wuti ay militant sëñ bi maanaam mustu wut lu ay militant sëñ bi ay taalibe la am na ñu bàyyi li ñuy wax la sëñ Cheikh Fall war di wax rek képp ku fe ne jàpp convocation ngay diwoo saafara lu la la te problème bi y a beaucoup de problème nañu bàyyi li nga xamante ne tey muy dëkk bi nga xamante ne ñu ngi koy fooyee ñun nag ci développement la ñuy yëngu ci social la ñuy yëngu bis bu ñu demee ba àgg ci li nga xam ne tey mooy politique bi dina xam ne Ibrahima ma ñu xamoon démb ak Ibrahima mi bokkul nekkul ñuy wër sëriñ bi jotul nag ñu segg leen xool seen jikko yi nga xamante ni ñu ngi koy faral di di indi ak li wax sëriñ bi te nekkul loo xamante ne nii naam amul waaw xam nga foofu dama fii dellu si tuuti ci histoire sëñ tubaab ba mu nekkee gànnaar amoon na benn eh, naar boo xam ne tubaab bi da ko wowoon jox ko fukki dërëm yu ngurdu na ko dama bëggoon rek nga fexeel ma sëriñ bi ba mu ñëwee sëriñ bi jël bayit jox ko ko muy koy jàng suba ak ngoon ngir yàlla musal ko ci li bëgg waaye teewut sëñ ba mu sañcee xayma bu bees bi ma sañc naar ba daf ko daa daf ko daa daa fekk yëkkati jaasi ji ñett yoon buumi xayma gi di lonk jaasi ji am ñaar ñoo xamante ne tey ci fere yi ñëw yëkkati naar ba ba ca kaw tëral ko ci suuf bëgg koo rey sëñ bi ne ko jéggal leen ko seen borom jéggal leen ñaar ñooñee mayu leen ñu génn xayma bi moo génnal boppam am ku mu waroon a yónni ne ko kaay demal mu ci guddi gi te nga yóbbaaleel ma naa ji mii boo àggee ba ca post tubaab bi nag nanga ko fa wàccee mu yëkkati ay yére yu bari ak lu tànn la ko tubaab bi joxoon mu jox ko ko sëñ tubaab la daan def ay noonam fi mu nii dafa am loo xam ne sante ñun dañoo war a xam li ñu am lan la ñàkk xam nag li ñu am lan la moo war waral am li nga xam ne ñoo ngi koy doxee ndax tey jii fi ton toll nii Serigne tubaab moom donte na maanaam tubaab bi nga xam ne gëmu ko carton ba muy defar ci Paris wala moo xam fu mu koy defaree def ci foto Serigne bi def ci jumaa ji carton ba sax day jar kon lu mel noonu nag boo ko amee waroo daw bay daanu l'essentiel bi mooy ñun dañoo war a dellusiwaat jàngal ñu kan mooy Sëñ Touba ak fan la tegoon tànkam te loolu rek mooy nga xam ne tey moo am solo Touba nag moom. Euh, kilifa yi nga xamante ne te ay kilifay aada lañ muy état du fi am baat bi yow mi diin ndax wax naa ko li fi bàyyi gendarmerie bii bàyyi fi police bi bàyyi fi commune bi bu neexoon sëriñ bi suba suba bu déclaré dara du fi fanaan nam waxee bii keroog ci guddi te ñu xam ne maanaam kàddu gi kenn moo ko yor muy sëñ Tuubaa saa yu waxee rek ñëpp jëfe ko ndax tey jii mu toll nii ci guddi gi ba mu génnee ñëpp dañoo delluwaat seeni kër sëñ Tuubaa nag du fi jóg saa su du fi jóg Cheikh rek mi nga xamante ne ji moo wane yoon wi nga xam ne moom la ñuy ànd ak Sëñ Tuubaa du fi jóg kon ñun dañu war a yaraat suñu bopp xool nu ñuy toogeewaat muy toogeen woo xamante ne tey ndax tey jii bu fekkoon ne keroog boobee bu sëriñ Abibu mi jugut dem ci sëriñ ba wax ko ko. foofu laa bëgg a ñëw ndax xale ñuy def manifestation dem nañ pour yëgal ko ko mais mënuñ koo mënuñ koo jot. bu fekkee ne sëriñ Abibu mi jugutoon dem waxi ko ko kon lii xew tey ji du xew kon moom it wax dëgg yàlla taxawaay bi nga xamante ne tey taxaw na ko ci Touba dañ ko ci sant bu baax ndax ñëpp amoon nañ ci ak jaaxle ndax tey jii fi mu toll nii ku war a mën a àgg ba ci sëñ bi waxee ko ko noonu mu xame ko noonu mu jaral ko mu génn ci guddi gi ndax tey jii la wala fi wax naan euh, dem gànnaar de maga ca aay maga ca baax booy yónni da ngay yónni mag te loolu mooy li nga xam ne dal nañu ci sëñ Abibu kon ñoom it ñoo ngi koy ñaanal suñu borom bàyyi ko comme xelam féq aw fanam te li nga xam ne fas yéen na ko liggéeyal maamam ji suñu borom jàppale ko te bu ñëpp meloon ni moom it problème du am yi nag dafa bari Touba moom kuréel boo fi gis mu taxaw rek bopp ko tax a jóg wala leneen ndax tey ji ñaata kuréel yoo xam ne taxaw na biir Touba lépp fi la ñu fekk ñun 77 ak léegi génnuñu dëkk bi dem fenn mais lii réalité bi comme niñ ko waxee kero dama ko wax di ko waxaat gox-goxaan yi dañ koo dagg muy ay village chef de village ya fa nekk nañu wut seeni i de quartier bu ñu wutee seen i chef de quartier wut seen euh, seen ak seen i de quartier bu booba lépp loo xam ne ñu ngi koy def dara du ci nu mu tëddee dama ciy félicité nag Serigne Moustapha mu sëñ Moussa Bassirou ndax sëñ Moustapha Bassirou moo ko tegoon ci bopp dëkk ba waaw tey jii fi mu toll nii lépp loo xamante ne tey diir gi nga xam ne jël na ko village bi ak léegi lépp loo xamante ne tey jii laaj nga ko ko dina la ko tegal ndax tey boo xoolee këyit ya nga xam ne moom lay joxe waroog lool ak yeneen village yi këyit yi ñuy joxe taxawaroon nañ fii kuréel boo xamante ne tey chef dañoo amoon njiit ba ca politique bu duggee la yàqu te boobu sëñ Moustapha Moussa mii moo nekkoon secrétaire général boobaak léegi fi mu toll nii kenn tanewut kenn te dëkk nag bu fekkee ne day dëkkub kilifteef lépp loo xamante ne da nga ko war a wax ak nit ki boo toogee di ko wax ak nit ñi nit koogee war a am fayda moom toog jàpp mor su njàmburam te loolu mooy li nga xamante ne tey moo am ci dëkk bi nañu jox kilifa yi war ma kilifa yi nag bu ma ko waxee mooy dañuy tàmbalee ca suuf comme wax nañ ne tey ji ba ca délégué de karce ba wër ta jàpp ne Macky sàll moo ko fa teg ko ko fa teg sëriñ bi la nañ koy xoolee sëriñ bi na sëriñ bay doxee moom it na am fayda yi di doxee noonu bañ faa jël jabaram di ko fa teg bañ faa jël doomam di ko fa teg na jàpp ne fi mu toll nii mbooleem koo xam ne dangaa dëkk ca quartier ba njabo ci njaboot gi nga bokk demal fii ci quartier bii ñuy wax kër baylaat tey jii bu ñu demee ba leen ceeb bi jooy nañ ba tàyyi ñoom nee nañ maanaam gisuñu sax commission bu fa taxaw di di di leen recensé xam nga ki gisul kii ko recensé kay wax dëgg yàlla la muy wax kay moom séddale bi bu ñëwee duma ci bokk te loolu mooy li nga xamante ne tey am na biir Touba te Touba nag day dëkk boo xam ne biir Sénégal moo war a nekk référence bi la sëñ Saliou waxoon ci Touba rek tubaa moom sol na aw dàllam dëkk bu mu dugg boole ko ci boppam tey boo demee France dem Italie dem Amérique foo ci dem kër sëñ tubaa mu nga fa. kon tey jii fi mu toll nii Touba dey dëkk boo xamante ne tey ku ci taxaw mu dem ku ci taxawul mu dem ndax la sëñ mun Mountakha wax dafa leer ku dem dina dem ku mu dina dem kon nañ fas yéene nag dem. ànd ak moom dem. mu na solo euh, monsieur Ka déclaration Serigne Bass Abdoul Khadr bi mu mujjee def euh, barki démb ndax nga ko jàngatee. waaw déclaration Serigne Bass Abdoul bi. Euh, lu mu waxaat la ndax boo déggee ni mu ko waxee dane ñëwaat naa pour waxaat leen ko mbir nag bu fekkee ne ñu ngi wax di ko waxaat dañoo war a jàngat ana lu waral duñ ko jëfee te détaillé naa ko ndax tey ji fi mu toll nii euh, boo déggee mbir bu fekkee ne patrimoine dëkk bi Serigne Touba la tey jii sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te moom lay woo di ko jox ay waxam muy wax commission bi nga xamante ne tey dañ ko war a taxaw muy saytu dëkk bi dafa war a doon loo xamante ne tey euh, lu lu lu lu lu war a mën a nekk la faay ga da nga koy tàmbale ci commune ba maire commune bi bi nga xamante ne tey jóge nañ ci commune rurale mu jàng ci expérience commune rurale nan la ñu war a gérer commune ba mu ci wooyee secteur yëpp ci la coow li am secteur transport bu njëkk kenn rek lañ daan jël garage yi nga xam ne am na fi IDK jël na ko jël Mamour mi jël euh, kii xaadim euh, Gueye jël Modou Mbengue ñooñu ñëpp ci secteur transport te bu njëkk commune benn secteur rek la ñuy jël comme ni ñu ko daan jëlee ci marché bi ni ñuy jëlee seeni seeni seeni jeng ci marché Ocass mais léegi bu fekkee ne jël na secteur yëpp transport ba ci charretier yi ba ci gone yi nga xam ne te ñu ngi yëngu ci politique mais kenn kum ci jël ku ne ba nga ñëwee daanaka yow si jëm bopp da ngay jàpp ne yow jox nañ la ndomb tàng xam ne tey vraiment au lieu que nga teewal fa li nga xamante ne tey mooy askan bi sa bopp nga fa teewal ndax jàpp nga ne am nga baat te loolu taxutoon ñu tànn leen yëf yëf ma nga sooxee foofee tey boo demee mu ngi ci 10 adjoints au maire dem na ba wéet ca 10 adjoints au maire yooyu boo yéegee ca kaw boo yéegee ca kaw daanaka bureau yëpp fënd kenn nekku fa yow ngay maire kat bëgg a dox munta ne ab dëkk nag bu ñu la ko dénkee nga dem ba daanaka fi mu toll nii lu ci bare baree baree baree bare boo jaaree fii ñu jaar fii fukk di gas fukk di suul résultat du mën a am te mooy li am ci commune Touba soxlawuñu boroom xam-xam li ñu soxla mooy ab dóorkat te tey jii fi mu toll nii dëkk bi dañoo dem ba fi mu toll nii ñu ko war a defar buñ ko bëggoon mu baax dina baax buñ jàppee buñ waxee waxante li nga xam ne seen tey mooy réalité yi Serigne Bassirou Abdou Khadre Euh, dañ koy dañ koy sant bu baax ndax li tax lépp loo xamante ne tey mu ngi koy wax dina ko waxe fayda ak ni ko sëriñ bi bëggee jëfe gi nag ci ñun lay des ñun taalibe yi ana lu waral duñ ko jëfe nag loolu moo jar a seet waaye moom li ko war bu jëlee ci sëñ bi rek ñëw indi tey jii nag bu fekkee ne maanaam kenn ku ne day jóg ne sëñ bi nee na bu yàggee duñu xam lan mooy waxi sëriñ bi bu kenn ku ne jógee jóge ci sëñ ba taxaw ne sëñ bi nee na duñu xam maanaam lan moo ciy waxi sëriñ bi loolu la preuve nag bërki démb bi xale yi génnee sëriñ bi génn wax dinañ xam ne tey jii sëñ bi yónnee moo waxal boppam ndax tey jii di sëñ Sidi Maxtar yàlla na ko suñu borom yokk leeram bi coow li amee fii Touba dafa woo sëñ Bass Abdou xaadar ci wetam devant ci Sénégal gépp toog média yëpp toog mu ne mooy samay tànk mooy samay bët mooy sama làmmiñ booba la coow li jeex mais tey jii fii ñu toll chaque jour am ku génn ne sëñ bi nee na chaque jour am ku génn weddi ne sëñ bi néewul loola dafa doon loo xamante ne tey mën naa ñàkk lool ci Touba déclaration bi mu def nag dafa doon une déclaration boo xamante ne tey bu bu bu bu bu la mooy comme li ma wax fii lañ ci war a jàngat nag mooy tey jii ndax dafa wax ne. chef de quartier ba moo fa teewal sëriñ bi chef de village ba bu ñu fa jógee nañ dem ci commune bi bu ñu fekkee commune mënu koo saafara nañu dem ci moom mais ku mënta àgg sëñ Bass nag te am sa problème. dëgg la <laughs> monsieur Ka leeral gi am na solo mais comme que temps bi xoj nañu ñu jeexal rek rapidement ak euh, lampi dëkk bi nga xamante ni giseen nañu euh, Abdou Lahad Ka daal la koy joxoon te gisatuñ léegi nga yore ko lu waral lu ñu mel. waaw xam nga Touba dañoo dem ba gis nga sax Touba ci kanam. ñu ngi def liggéey bu mag ci li nga xam ne mooy éclairage public bu Touba ndax boo xoolee Sénélec bi ñu defee acte 3 bi dañu décentraliser li nga xam ne santé mooy éclairage public ci communes yi ma def ci liggéey bu mag mag euh, ndooy ak ñi nga xam ne tey jii mooy waa Sénélec ñu defoon benn plan d'action ne léegi làmp yi nga xam ne ñu ngi tàkk guddi ak bëccëg ci réew mi te loolu day delloo économie gu réew mi gannaaw euh, mu doon loo xamante ne tey vraiment dafa rafetut ci gis te am na ñoo xam ne seen i kër seen i seen i seen ay làmp tàkku fa xam nga ki ay làmp tàkkul këram mu gis koo xam ne guddeeg bëccëg làmp yaa ngi fay tàkk dañuy am problème ñu def ci benn plan d'action wane na léegi nañu dem ci poste yi génne compteur yépp liggéey boobu ñu def ci liggéey bu mag màggalug daaw jéeg gi ma ànd ko ak waa Senelec mboolem fu làmp doon tàkk guddi ak bëccëg ma fexe ba yooyu yëpp coupé muy làmp yi nga xam ne seen tey ndax ñaari ñaari ñaari kii la muy làmp poto yi nga xam ne mooy poto bant yi ak làmp yi nga xam ne mooy moderne yi ne ci tëli bi yooyu mooy làmpi commune mu doon làmp yoo xam ne yu jafee liggéey la ndax tey ji oto yaa ngi daane sareet yaa ngi daane te vraiment dëkk bi impôts yi nga xam ne war nañ koo fay fay ñu ko ndax boo xoolee tey ji nii Touba ci kanam mën a amee recette ci addiye commune mënu ko amee recette ci li nga xamante ne tey mooy mooy mooy juuti ak yi ñuy laaj yooyu yooyu yëpp mu doon ay amalgaam yoo xamante ne tey dooy doy waar la ñun nag ñu copte toujours rek pour liggéeyal sëñ ndax sama classe gi ci ay difficulté laa doon liggéey dama daan dox jóge naa fii jumaa ji ba tubaa awal di wàññi poto par poto te la taxoon nag méttiwut ci man mooy sëñ Touba laa ko doon defal tey jii fi mu toll nii bu doon commune bi la a fayuñu ma lu jar coono bi nga xamante ne tey maa ngi ko doon sonn ci biir commune bi te ba jusqu'à présent maa ngi ci biir commune liggéey liggéey bi may liggéey sëñ Touba laa koy liggéeyal la preuve mooy barki démb ci koor gi rek mag waa Senelec daanaka ci poste Touba bi ci lañ fanaan te loola xaaruma ci mairie xaaruma ci keneen ndax sëñ Touba lay liggéeyal loola nag bu ñu demee ba nga xamante ne tey commune bi war nañoo am euh, ñaari partenariat yoo xamante ne tey am na ko léegi far mu doon ñett commune dafa war a lëkkaloo ak Senelec ñaareel ba Touba ci kanam ñëw encore muy troisième position muy ñett yoo xam ne jàpp naa ne bu fekkoon ne léegi waxtaan am na problème bii ñuy wax ci wàllu éclairage public ci Touba day dañ problème bii ñuy wax ci maanaam problème mu poto yu àggul ci dëkk day dañ ndax tey yi boo xoolee état bi fi génne daana maye cent kilomètres ci Touba te teewul ba léegi Touba dafa am problème poto kon poto yi ñi daan joxe dañ ko daan génn dëkk bi bu fekkoon na léegi toog nañ waxtaan xool nan la ñuy def pour loolu saafaraw day saafaraw mais nag bu fekkee ne comme ñun moom dañuy liggéeyloo rek fan la yem loo ngay yem ndax tey jii fi mu toll nii ñun ñoo copte jàng li nga xamante ne tey mooy courant ndax ñun ci lañ takk jabar ci lañ defee lépp xamuñu lu dut maanaam tey jii li nga xamante ne tey lu jëm ci wàllu courant la am nañ ci expérience te euh, am nañ fierté it pour liggéeyal ko ki nga xamante ne tey mooy mooy sëñ Touba ci dëkkam bii waaw commune nag euh, comme li ngay li gaa yi di faral di wax léeg-léegi ñu bari dañ may poser question yaa Abdou Lahad Ka ngeen am problème ma leen déedéet Lahat Ka sama frère la amuñu benn problème doxin wi nga xamee ne tey nag mu ngi dox man tey jii lépp loo xam ne maa nga ca te aw ma ca baat sañ na maa taxaw te mooy li ma dal ci ceeb bi génn kenn gisuma ca mooy li ma dal ci mboolem loo xam ne tey ak ay activité la yoo xam ne ñu ngi koy def ndax man dama bëgg lépp luñ may limaale ba loola ñëwee duñ na àccam ndax tey jii président Macky sal mun a mënuñu ko wotal 1000 milliards te amul résultat coow laa ngi ne cur. tey ji demal ci commune Touba 200 millions la Abdou Lahad Ka génne te ba jusqu'à présent tey lañ ko gën a mën a xas tey lañ ko gën a mën a song kon maanaam tey ji ñàkk ñàkk jaar yoon la damay félicité Barthélemy li Barthélemy Diaz maire ba nga xam ne mooy maire am bi tey ji fi mu toll nii dafa def virement de crédit en cent millions waaye jëppal kenn dégguñu coow tey jii fi mu nii bi mu tàmbalee wax affaire foncier bi rek lañ yóbbu affaire foncier bi Daara Jolof ndax moom ci commune am lañ doon wax waaye dem nañ ba taayoo ko ba mu laalaale état te du yem foofu dina laal état bi laal religion bi laal leneen laal leneen comme ni coronavirus bi indee yëngu-yëngu yi ci biir réew mi ndax coronavirus bi yëngal na affaire jumaa yi ak jàkka yi yëngal social bi yëngal développement bi yëngal politique bi tey jii nag fi mu toll nii coronavirus moom day professeur boo xamante ne tey bu fi génnee jàngale na fi njàngale moo xamante ne tey war nañ cee mën a def nag taxaw jàngat seetlu bu baax xam maanaam lii lenn lu ci ne nan la ñuy def pour war ko saafara waaw lii daal mooy mooy mooy mooy li nga xamante ne tey ci gàttal comme temps bi dafa gàtt mayuñu ko kon tàggatoo rek laay def waaw tàggatoo lay def di la sant bu baax màggat aussi ci yar bi ak teggin bi di sant bu baax nag sama xarit ndax moom vraiment yàgg nañ yàgg goo xamante ne tey euh, depuis lu yàgg euh, mboolem caméra boo xamante ne tey filmé na ko da koy dëppale ak li nga xamante ne tey mooy war may Touba te kenn ku ci ne bu la yàlla dimbalee nga ñëw fii ndax dama koy faral di wax dëkk bii di dëkk maam Cheikh Ahmadou bàmba sëriñ bee wax ne wootewuñu dañoo tànn kon ku fi ñëw da ngaa bokk ci tànnee fii kon yàlla ñu yàlla defal jàmm te seen sit bi it yàlla na dem muy 24 euh, actu yàlla na dem acte boobu téye ko ba mu nekk télévision ndax tey jii fi mu toll nii kuy jéem rek mooy am ku jéemul du am dara te lii ngeen def lu rëy la occasion bii ngeen ma mayit pour ma def ko it wax dëgg yàlla dama leen ci sant bu baax. di ñaan suñu borom def jàmm ci réew mi jàngoro ji ñu toog ba gars yi dutuñ fi toog naan Touba 1 Touba 2 Touba 5 Touba kii Sénégal mu génn réew mu génn adduna bi yëpp ba ñëpp kenn ku ci ne delluwaat ci li nga xam ne tey mooy sa yitte asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu moom Ibrahima Ka dañu koy jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi nga xamante ne nii amee na ko dégg ngeen nag ay kàddoom yaakaar naa amee ngeen ci njàngat bu baax a baax ndax moom dañuy bëgg di ko invité ndax dafa véridique loolu macha allah te day argumenté li nga xamante ni ne noonu la waree euh, janta ngërëm ñeel na leen nag amee internet di ñu seen beneen numéro seen entretien jërë ngeen